masin ba joona suubu leen dem gaar ba wàccaayu màggal kazu rajab édition 2020 mbokki internautes yi programme bu am solo la leen ak aktu yembal xam jaar-jaari Serigne Fallou li waral ñu màggal bis bii diggante Serigne Fallou ak njabootu Serigne Touba digganteem ak maam Cheikh Anta digganteem ak maam yi xaar leen ko si Ndindy Actu TV. programme bi fa seeni tàmbali naka le 20 février kon daal mbokk yi mën ngeen abonné gaaw gaaw si Ndindy Actu TV lii lépp si programme mu jagleel ko màggal Kazu Rajab seen plateforme Ndindy Actu au cœur de Lima.